عليك صلاة الله ثم السلام فبركاته na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina as-siraata al-mustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل المسائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ورضي الله تعالى عن الكتب المكتوم صاحب الفقمية والمكتوم تكميلا مولانا ابي العباس شيخنا احمد التجاني ورضي الله تعالى عن جابر الكسري وسائق الامه الى البر الرحيم امام الفيلة مولانا ابي اسحاق شيخ الاسلام الحاج ابراهيم ابن الحاج عبد الله التيجاني القائل بمجاراة مع العصر الحاضر أطلب من أحبابنا أن يوسعوا نطاق الدائرة جمعية أنصار الدين بحيث يكون عدد أعضائها عدد أتباعها أتباعنا بأن يتكون في كل قرية وفي كل مدينة دانية أو قاصية فرع بجمعية أنصار الدين إلى آخر الرسالة سيدي ومولاي الشيخ محمد بن حميد إبراهيم نصر رئيس جمعية أنصار الدين الوطني سيدي wa mawlaaya Cheikh Abdourahim Sayyidi mawlaaya Cheikh Baye Hadi Cheikh Ibrahim Niass نحييكم أزكى تحيات الملفوفة بجمال الاحترام والتقدير ونقدم مثلها إلى كل مقدم ومقدمة ومقدميهم وأتباعهم وإلى كل ممثل رسمي أو وفد سيدي مولاي الشيخ محمد المنحينا بعد التحية الطيبة إليكم جميعا والوفد المرافق لسيادتكم نشكركم على هذا الحضور الشميل bokk jullit yi bokk taalibe yi gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne xéwal bi yëpp moo ñu ko defal nga xam ne moo ñu sant ne na ngeen royaalu ci buumu bi yàlla bi te bu leen jaqale ko gannaaw bi ñu ko sante ñu ngi julli ci yeneen bu tedd bi nga xam ne yërmaan rek lañ ko yónni te moom moo présenté ci suñu kanam ni mooy sangu booy jëkk yi ak booy mujj yi di suñu soppe inti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm ay saxaabaam yépp di gërëm xutbul makkum Seydina Ahmad Tijaani ak ki nga xam ne kii mooy saahibu saahibu fikratin maniira allati asasat haadihi aljamia هذه الفكرة الجميلة الفكرة هي إنشاء jamiyatu ansaaru diin borom fikra boobu nga xam ne moom mooy jàngale kas mooy kii jàng dama-dama yi mooy ki nga xam ne kii dafa ñëw pour wommat yi xeet yi xeet yi yonent yàlla Muhammad ba tàjjeel ci kanamu yàlla kenn ku nekk wax mu ne la ha anta wa rabbuka amuñu bu mel noonu bu xalaatee jamiyatul ansaaru diin kenn waratu dellu gannaaw koo xam ne kon buy dox ci lislaam ci adduna bi rek membre la ca mbaa muy mu assis ki ko fondé mooy Mawlana Cheikhul Islam Alhaji Ibrahim di woy jur yi nga xam ne ñoo toog sang yi mu bindoo ca lettre ba nag ne ngir ñu ànd ak jamono ngir ñu ànd ak jamono bi ñu ñu toll ak bi ñu mu ne maa ngi sàkk ci mboolem soppe yi ñu yaatal géew bi daal di formé lu ñuy wax daairatu lu ñuy bi dana tolloo li li ay taalibeem yàq mooy kon nag taalibe bu nekk war ngaa yor kaart nee daa bëgg membre u jamiyat Ansaaru Diin bi na tolloo limu ñi ko toog kon kenn amul léegi dogal ñàkk a yor kaart Ansaaru Diin danger la sax sëriñ bi benn ba ñuy door a yëgal affaire bi 2012 gisoon naa ci koo xam ne kii way juróom dafa faatu mu am am liir bu bees liir bi juddu mu jëndal ko kaat way juróom bi faatu mu jëndal ko kaat mu ne lii bàyyi wax kat daa wóoru moo tax dama bëgg xale bi léegi mu bokk ci bëgg sama papa dem na nañ bokk xam kooku lépp gis mooy wóor kon kuy dund nag amat loo taxawaan mu ne dama bëgg waaye mu ne dama bëgg village lu mu sori sori ville ak fu mu nekk ñi sore ñu jëri yëpp nañu dugg ci ensemble bi kon ci wax loolu dañu war a dégg ndigalam Arabie Saoudite dañuy dégg ndigalam Égypte dañuy dégg ndigalam adduna bi yëpp dañu bañ a guddal waaye nekk membre ak lu mu fasos waaye bañ a guddal moo tax kon ñu leen di nuyu nuyoo bu rafet ñu leen di yéegal ci maqamay gën a kawe amul ku dul yéen di nuyu mboolem muqaddam bu góor ak bu jigéen ak ñi leen kaddamal ñu ngi nuyu tamit. bépp représentant bu ñëw fii ci autorité yi ak ku yéene ñëw te ñoo ngi xam ne ne Ansaaru Din fii ci Mbour sëriñ bi ñu ngi leen di seereel ne Ansaaru Din fii ci Mbour alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla bu baax du ñu xuloo du ñu ŋaayoo ñoom ñëpp dañoo ànd nekk benn buum Ansaaru bi fii ci département boobu ñu ngi ci 45 daayira yoo xam ne adhéré nañu ci Ansaaru bi ñeent rek ñoo ciy ñoo xam ne seen ak nekk gannaaw ba ñu adhéré ba léegi. 17 milliards waaye am na ci koo xam ne jox nañu kuréel koo xam ne mokk ña li tax mu réer ñu keroog ba ñu koy wax Cheikh Baye Cheikh Ali mu fa woon sëriñ bi ñu ngi lay seedeel ne sa ambassadeur bii yaa ngi mbooleem ànd ak ambassadeur yi mel ni moom infatigable du sonn mu ñëw na ci yére dara ma su ma sax ma rek mu ne ñu fu ngeen xalaat ñu dellu ba ci mujj bi fu ma ko nag mu ne ma fi mu xam naa ne maa ngi dem Dakar waaye bu ma ñëwee danañu dem ci ñoom itam pare na pour saafante ñëpp dëgg dëgg dëgg sa tànnaar fekk na sëñ bi ñu ngi lay yóbbante nuyoo ak ngërmande ci xalifa bi nga xam ne yeexaat na xalaat na mu wala Cheikh Ibrahim bi wala Cheikh Ibrahim ba mu sosee asar avant mille neuf euh, mille neuf cent ci mille neuf cent cinquante mu ñëw ba mille neuf cent soixante daal di ko utal récépissé affaire yaa doon dox ndànk ndànk di dox waaye xalifa bi bi mu ñëwee da ko yee nag pour ñëpp ñu yëngatu dundal kàddu Mawlana Cheikh Ibrahim boobu keroog ba mu lay tànn ci suñ kanam la ñun ñëpp waa ñëpp a béyoon lañu yaakaar ci yow mu nii ñu deux neuf cent euh, ci deux mille trois ba léegi ñu du ñu yëngatu fii dafa nañ ba suñu carte membre sax ñu ci Ansaru lii di yëngatu di def ay dars ci biir kër yi di toxu su ñëwee ci euh, muqaddam bi beneen yoon ñu dem ci muqaddam beeg benn sëriñ yu xalifa bi waxaat nag ne nañu gën a farlu ñu mos a dugg ci muqaddam yi ku ñu woo nga uyu fii am na fi muqaddam yu baax. kenn ku dul bàyyi te yaakaaroon kenn ku dul bàyyi am na kalaatala moom lañ bëgg tey moom lañ bëgg ëllëg te incha allah bu boobaa mu romb ñu boole ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne wax na ne dal tabatal haadi ilayya wa innahu yughatti dalaamiruhu wa haqaa'iquhu wa yasma'u minni dhikrahu wa madiihahu يفاخرني في الانبياء ويعانقني وبارك وحل احل صحبي فهل مودتي وقال اذكروا صحب الخليل تسامحوا صلى الله عليه asalaamaaleykum kese ni ñëw jàkkaarloo àdduna yëpp ne leen li ngeen nekkoon yëpp baax da ngeen da ngeen ko war a soppi man maa xam li nga xam ne mooy defar ak ñaar àllaaxira te yàlla ma ko sant pour mu wax ak yéen àdduna yëpp kon mu wéet lool mbokk mi di ko xeer benn benn yi nga xam ne ñoo ko jotoon a gëm ca Makka ñu di leen rey di seen doom yi di leen toroxal di leen dóor di leen tumuraake yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def fukki at ak ca Màkka fukki at ak yoo xam ne daanaka lim ca daj ci ak mbugal ak jafe-jafe benn doomi aadama mosu ko daj ci ko maa ngi jàng ci benn téere boo xam ne benn euh, taarix waa ji di wax ne Amar Abu Jahl daana ko jël jël paaka dugal ko ci safara ba mu ba mu xonq cur mu jam ko ko ba mu ci luppam wala fu am kii ba mu dugg ci biir ba jël ndox mu sedd sotti ci jam paaka bi ci biir xam nga kooku xam ne caay-caay ak nu ñu métitéré ne ko pour muy yonent bi mun a ko maa lànk ko bi yonent bi sallallahu alayhi wa demee ba yërëm ñun àndoon ak coono bi ak métit bi mu digal leen yàlla digal ko ne ko la gàddaay gannaaw bi mu kat kii moo ko gàmmu bi mu gàddaayee dem ba dëkk Moussa bi mu demee gàddaay dem ba dëkk ko mooy ñi ñuy wax muhajirin muhajirin mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo gàddaay lépp luñ amoon ci teraanga ak alal ak seeni njaboot ak seen nguur ak seen dëkk ak seen i néeg ak seen jabar seen doom lépp bàyyi ko. ngir ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko ci ne kon nga déggee ci ne képp koo xam ne da am ceeb ci yàlla di liggéeyal yàlla soxla nga ay soldaar yu taxaw ci sa kanam pare pour def sacrifice pare pour jàppale la pour ngay ñu dem ba dina fi mën a war bi ñu demee ba fi mën a war ñaan lañ fa loolu rek doy na doyoon na doyoon na ko bu ma yemoon foofu rek jaramay ko maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee mu def ci àll ak ñett amul résultat ñu di ko sonal di ko dóor di ko toroxal di ay njabootam di ay saabam ba mu jógee première étape bi nga xam ne moom la def pour jëm ci wàllu am ndimbal ak tasaare diine ji ansaar ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko teg maanaam loolu doy na ko kon nga dégg ci ne bàyyi tamit xalaat su fekkee ne taxaw na pour liggéeyal diine pour tasaare ak tasaare diine tasaare mbaax tasaare njub kon ansaaru diin ñoom ñoo war a taxaw fekk loolu message boobu tasaay parce bàyyi mooy doon yonent bi sallallahu alayhi ci bu wéree wéree wéree fu yonent bi jaar rek fa waroon jaar comme yonent bi am na ansaar moom it foog mu am ansaar waaye nag soo jàngee ci taarix lan mooy liggéeyu ansaar ci ngay xamee rek lan mooy liggéeyu ansaar diin bi fekkee ne gëm nga ne daa ñoom am yonent bi ah ansaar lan la leen yàq alquran waxal والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون yàlla bi ñuy présenté ansaar daf ne ansaar mooy ñi nga xam ne ñoo ubbil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam seeni kër ak mboolem ku gëm yàlla waaye ak maanaam ubbil ubbil gëm euh, yàlla mu am mu am fu teg tànka maanaam action yi nga xam moo jëm ci jëm ci gëm yàlla yëpp mu am mag mu am seize am barab boo xam ne fa lay développé fa lay fa lay fa lay fa mu ne nag lu xet bu na man haajee ñoom day ku ci xëy rek sa bugg-bugg mooy nga gis ku tumuraanke koo xam ne yonent bi sallallahu moo ko tax ak gàddaay nga fàttu sa jël am ci alal di ko dimbalee gaa yooyu nga xam ne ñoo tumuraanke ngir yonent bi ñu leen koy dimbalee te léeg-léeg sax ñu jël li gën a ñu jël seen alal li gën a baax seen alal wala ñu am lu ñu soxla ñoom am nañ ci soxla waaye ñu bàyyi seen bokk jox ko seen bokk yooyu ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi baal yàlla nag tëjee ko ne képp koo xam ne yàlla fexe na ba dindi nay ci sa xol maanaam bu sëriñ bi ootee doo nayee joxe bu yàlla ootee doo nayee joxe yàlla mu ne ku àgg foofu àgg nga ci texe texe dëgg mooy nga ñemee nga xamee jël sa alal jox ko nit ngir yàlla yàlla mu ne loolu moo texe